kay yéeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf kundóbin rey sa maam dangay moytu lu ñuul lu ni mel la tax l'observateur mi ngi ñuy xamal ne fële ca Bafoussam ga ca Cameroun coronavirus bi jaar ci biir gaynde yi ba xawlee national tax na lu bari soppeeku na ci équipe nationale bu Sénégal ubbil yéenekaay bi ci misir yi ñu jël bokk na ci ñetti membre ci fédération bi la may ñu dëkk fa gaynde yi dëkk ñoom gaynde yi aaye nañu leen ay dajaloo ci seen morom lu mat ñaari mètre mu di xibaar bu ñu jàngee ci l'observateur rakki l'observateur di record mi ngi wax moom ci gaynde Sénégal yi ak seen max bi ñu war a seen digg ak Malawi ci ngoon Kalidou Koulibaly mi nga xam ne bi coupe de Afrique bi tàmbali ak léegi footballu ndax coronavirus record nee nañu wér ba suba dina dellu ci axe centralam dina jotaatit brassard capitaine am bi di Edouard Mendy yéenekaay bi mi ngi ñuy xamale dina delluwaatit équipe bi yëpp mat na ñi corona woon wér nañu ñi blessé woon it ñëwaat nañu avant centre yu Sénégal yi mel nañu dëgg loola ba dugal biit ci Coupe d'Afrique te leen tic stade yéen kay xëy di laaj ana lu leen dal fukki match Coupe d'Afrique yéen bi nee nañu Sénégal football na ko te ay avant centre am dugaluñu bi yéen bi nañu muy Famara Diédhiou di Boulaye Dia ba ci Habib Diallo jot nañu yeew ndax ci Moussa Sow la Sénégal gëj a bu dugal biit ñoo ci seen tournal ci campagne bi kenn ci candidat El Wardini moo xëy amee xëpp mu njëkku Le Quotidien ba amee ci waxtaan wa mu di Barthélémy Dias ak Abdoulaye Diouf Sarr Soham Wardini nee na programme am la Barthélémy Dias toppan suur soi nañu fi ñu nekk dey kenn attanu ko moom Abdoulaye Diouf Sarr moo teg tànk ci mbedd mi fi suur soi sukkandiku ba wax ko moo di ba mu demee ca Ngor ak ca Yof li ko toppoon ci mbooloo kenn xamul lu mu toll mbedd yi fees dell nit ñiy buuxante ak a tàncaloo ci lépp cent mètres amul xale amul mag ñi taxaw ci seen kawi terrasse ña ci des ci seeni balcon Diouf Sarr ji di riir ci dëkk bi lii quotidien nañu booba aselema ngay toj duo Lalla Aïcha Fall ak Pedre Ndiaye fu ñu jaar nekkal ko ci ak dal ci seen kaw boole ceeg samal ñeñ ko bu baax a baax réew mi quotidien feelu ko xamal ñu ne Pedre Ndiaye ak Lalla Aïcha ñoo ngay doxal ci HLM ci xët mu njëkk journal La Tribune meerum Dakaaru ba woon di Pape Diop moo fa nekk yéenekaay bi nañu moom la ñu woon keroog ca télévision Sen TV moom candidat bu bokk gis-gis bi ca mairie bu Ndakaaru di Pape Diop leeral na fa li tax ba signé woon charte non bi ñuy wax ci mi Pape Diop nee na lu ne fàng dee su ko jeex bilaam ak programme doy na sëkk sart Abdoulaye Mountakha Niass caaxaanul ca Kaolack ginnaaw tournée mobilisation bi mu defoon jëmee ko ci responsable ak militant yu mouvement bii di Maadaan moom conseiller spécial bu président Macky bi nee gis na ne li waa Kaolack soxla di ko jooy a jàmbat ci programme bu Benno Bokk Yaakaar rekk la gis saafara si moo tax mu dem fekki leen surtout Baye Niass bi rafetlu tànn jiital gi ñagasal lëmbe campagne bi mu di Barthélémy Dias mi dal ci kaw Abdoulaye Diouf Sarr ba xolam sedd ci émission Grand xew jamono yu tegaloo yoo xam ne bu gën a garaaw sa morom nga ne bii la yëral xët mu njëkk yéenekaay bi ca barke ji benn waay moo fa tiim daggat ko ci anam wu ñaaw ndax da koy tuumaal ne waa ji daf doon tëddee ab ñaareelam amit beneen waay bu demoon ci ay cant jàng yee neex dugg ko waa ji di daanu yësi ba jël ab paaka jam ko boppam ñetteelu xew-xewu jamono bi l'observateur nee nañu ma nga xewee ci jàkka ju nekk ca Pikine Ouest ginnaaw ba ñu fa sàccee si jaada jullikaayu imam bi sàcc mbalaan mañ fa doon wasifa keroog keesu néewu jàkka ja la ñu sàcc CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal seen savon yi di créole NSIA santé famille ak NSIA auto ak seen gamme Opalia ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi ñu àndoon ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye di ko gërëm ak yéen ñu doon teewlu xibaaru suba seeg RFM bokkoon na ci ne ay xibaar virage bu mujj bu gaañe ne ci wàllu local yi campagne bi naka noonu Ousmane Sonko nga woon ca dalab njiitu réew mi ca Fatick moom daal dina euh, yëkkati kàddu jëmee ci lu mu gisul mu ne ki gët lu mu defal moom président Sall waa Fatick ca Mbour mu joxoñ fa moom njiital Pastef Cheikh Issa Sall euh, ci wàllu alal ju lewul Mahmoud Saleh mu ne dafa laxasu ci mbiram euh, suuf Podor Abdoulaye Daouda Diallo moom la mu bëgg ci waa APR ci jël seen yoonu bopp di liste parallèle ñu tegaat lépp ci suuf ànd doon benn ngir ndamal benn bokk yaakaar bu ko rege dimanche gréew xiifal bu mbootaayu étudiant yu ndar dugg dem ak léegi sàkku rek ñu ne la ñu digg woon ak kilifa yi nay accord ñu doxale euh, loole président Moustapha Niass njiital pencum ndaw réew bu Sénégal moom ak tolluwaay li ci Mali la mu gis mooy yu delloo buum ca boy boy ga ci wàllu ordre constitutionnel euh, wàllu yoonal ñeel sarti réew ma am na yaakaar mu ne waxtaan yi diggante kilifa yëfa di transition bi ak waa CEDEAO euh, ci dal ngir jàmmi Mali Mali ga mu gis ne ñu ngay souffrir ñu ngi ci mitit Abdoulaye Diop mu nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi euh, digital gi may sa mbay ñu koy gërëm bu baax di ko sant ci kanam tuuti seen émission pencum gox Sénégal ñoom nag jàmm ak salaam jamono gi ndax képp ki nga xamante ne amee woon nga coronavirus daal di nga wér ba tax na sax test yi nga xamante ni jot nañ ko def ni ki dimanche gi amul benn jour Sénégal bi nga xamante ni daal mbas bi dina la xañ jogante ko nar a dox alte gannaaw suba euh, maanaam talaata euh, seen digg ak ñi nga xamante ni ñoo di waa kii di Soda Thiam di kenn suñu envoyé spécial foofu la ca Cameroun am na lu jot gis. équipe Sénégal daal dinay tàggatu ak joueuram yi fi nekk yépp la ko waral moo di test PCR yi ñu def ñeel Covid 19 gi dañoo wane ni joueur yépp a négatif loolee nag du xibaar gu baax gu dal xel sax bu ñu sukkandikoo ci journaliste bu quotidien record bi di Hubert Mbengue. nouvelle la boo xam ne moralu équipe bi d'abord les joueurs ak encadrement bi mais aussi supporters yi ñëpp vraiment seen xel dina dal parce que Aliou Cissé dina mën a aligner équipe bi gën am doole pour équipe Sénégal si match boo xam ne match bu important la. c'est une excellente chose euh, aussi bien sur moralu équipe bi aussi bien su moralu euh, supporters yi ak engagement mais également sur le plan sur purement sportif. ak effectif bu complet boobu nag gayndey kon amatuñu benn lay bu ñu sukkandikoo ci ancien international bi di Mamadou Diallo war nañoo firndeel ni ñooy numéro un ci Afrique. waaw man xeebuma équipe bi ñuy dajeel mais dama bëgg wax ne tey bu fekkee dañ bëgg a nekk champion d'Afrique ñu ne ñooy premier en Afrique kon waruñu toog sax nekk a def mooy nañu tournoi boo xam ne beneen tournoi bu bees lay doon. Aliou Cissé am kon joueuram yépp ci jongante gii mu war a jëm waaye tamit bu fekkee ne teg na yenn ci ay joueur yi doog a ñëw ci onze de yi lu war la bu ñu sukkandikoo ba tey ci Mamadou Diallo. mais ku mel ni euh, Idrissa Gana Gueye xalaatuma condition physique parce que wane na ko match passé Kalidou Koulibaly lu mënti am aussi mooy patron défense bi aussi tamit boo war na mën a jouer expérience am gardien de but bi man foofu nag laa am euh, xel ñaar parce que ñaari match yëpp mu def match yu excellent nga jël indi Mendy pour changer ko dafay xaw a doy waar mais nag bu ñu fàttali équipe bu nekk am na titulaire aussi tamit mais comme deux matchs la jeu te Mendy mooy titulaire bi il faut que ñu comprendre loolu. jogante Malawi Sénégal nag niki talaata ji lay doon bu 16h GMT jotee waaye laata boobu nag niki altine ji ñaari sélectionneurs yi ñi ngi leen di xaarandi ci conférence de presse d'avant match. mu newoon Soda Thiam fii ci Bafoussam radio Futur Média. Soda Thiam mbetteel dëgg moom la Algérie daal di am ci gile euh, Coupe d'Afrique euh, gannaaw ba ñu ñàkkee seen digg ak ñi nga xam te ñu di waa Guinée équatoriale euh, li nag moo di seen défaite bu njëkk gannaaw bu ñu toogee lu tolloog fanweeri jonganteeg juróom yi nga xamante ne dañu ko daal di kon boo gagné perte ñu si benn yoon ñoom waa Algérie loolu nag indi li nga xamante ne daal moo di jiixi jaax ci équipe bu Algérie mi nga xamante moo di équipe championne en titre ndax ñoom sax si gile ndorteelu tournoi seen diggante ak Sierra Leone ñoom dañoo defoon euh, match nul ba tax na fi toll nii ñoom si jogante gu mujj gi nag faaw ñu ñafe seen diggante ak Côte d'Ivoire ngir euh, mën a kon bokk am yaakaar qualifié ci li nga xamante ni moo di wàllu huitième de finale Coupe d'Afrique des euh, Nations geneen jogante bi nga xam ne ñu ko doon amal di ki e bi ba tey diggante Côte d'Ivoire la woon ak Sierra la woon ndam demul ndam dikul ci nekk nag jot naa dugal moromam ñaari bit waaye waa Côte d'Ivoire ñoom am nañu lu ñuy rëccu loolu ndax jekkoon nañ ko lool ba ci simili gu mujj daanaka si la daal di kon bokk koy euh, mujj euh, égaliser ñoom waa Sierra woon seen bit nag ko dugal moo di Alhaji Camara ñu ànd sa ki suufu jam ci arrêt de jeu yi Côte d'Ivoire bi mene woon ñaari bal ci benn yaakaaroon ni am na ndam ndam bu ko mën a yóbbu ci huitième de finale yi waaye ab erreur gardien bi di Sangaré tax ba El Camara égalisé ci quatre-vingt-quinzième minute de jeu bi góol bi gaañoo capitaine bi di Serge Aurier moo mujjee nekk gardien bi. mérité largement de gagner ce match-là avec plus de buts. amoon nañu ay occasion yu bëri mérité nañ gagné match bi ak ay buts yu bëri waaye amuñu chance am na yaakaar ni match bi di ñëw but yooyu dinañ dugg te dinañ gën a concentré parce que jël nañu ay ñaari buts yu mënoon éviter Coupe d'Afrique nag nii la da nga war a dem ba jeex waroo bàyyi ba mu jeex lii nag euh, jàngat la. faut jamais abandonner et je pense que ce soir c'est une leçon. ñu dugal biu Côte d'Ivoire yi di Sébastien Haller ak Nicolas Pepe moom sax la ñu fal homme du match. ci jeu bi la bokk. Euh, am na ay erreur ak euh, concentration léeg-léeg équipe bu jeune la am ñoo tax ñu am leçon pour euh, li ci des léegi nag dañu concentré ngir gagné match bi dox suñu diggante ak Algérie. gagner ce match contre l'Algérie. gardien Sierra Leone bi wanewaat boppam ci match bi Mouhamed Camara jàpp penalty bu Kessié daal di sauver ay tiir cadré yu bëri ak ñaari match nul Sierra Leone am na chance qualifié wu Côte d'Ivoire moom faaw jongante final digganteem ak Algérie. Youssouf Bodion Bafoussam RFM. ci groupe boobu la nag euh, classement bi nu mu tëddee moo di ñii waa Côte d'Ivoire ñoom ñoo fetee ci place bu njëkk bi daal di am ñeenti poñ daal di roy benn poñ Guinée équatoriale ñaari place moom nga féetee si ñetteelu place bi daal di am ñaari poñ Algérie moom moo féetee ci place bu mujj bi daal di am benn euh, poñ ci dimanche gi tamit geneen jongante diggante Tunisie la woon ak Mauritanie waa Tunisie nag dañoo daal di relancer wu ndax daal na nañoo am ndam lu yaa ñeent ci dara seen diggante kañ nga xam ne daal ñoom ñoo di Mauritanie. Euh, ñaari butu kii di wax bi xasri ak euh, benn but bu matluti ak itam beneen bu jaziri euh, moo permettre kon mbokk équipe bu Tunisie jamono gi féetee si ñetti place bi ci wàllu classement bi benn poñ daal dox seen diggante ak Mali ak itam Gambie mi nga xamante ni ñoom ñaar niki dimanche gi dañoo def match nul un but partout ñi nga xamante ne nag ñoo di waa Mauritanie ñoom. gannaaw ñaar jëf yi nga xam te ne jël nañ ko ci gile compétition euh, toog nañu ñu daal di waxtaanee groupe A bi ñoom euh, niki altine dañu daal di kon bokk soobu seen euh, jongante yu mujj si phase de poule yi Cameroun mi ko organisé daal di qualifié ci wàllu huitième de finale moom 16h diggante ba Cap Vert lay daal di on googule waxtu yi tamit dana am geneen jongante diggante Burkina Faso ak Éthiopie lépp ngir bañ ay mbir ma calculé ko yu ni mel euh, lenn nag euh, mën nañ ko ci wax itam moo di yooyu lay jongante incha allah euh, dana xumbate dagan loolu moo di ñaari jongante yooyu ndax Burkina Éthiopie ak Cap Vert ñoom ñett ñëpp ku ci nekk fi mu toll ni ba tey toogoo ko mën nga qualifié ci wàllu huitième de finale ñu daal di ko jeexaleeg Super Coupe d'Espagne ak euh, Real Madrid mi nga xam ni moo ko daal di gagné niki dimanche gi ca Arabie Saoudite ca Riyad seen digg ak Athletic Bilbao ñaari bal ci dara la ko Real Madrid daal daan bi nag moo di fukkeel ak ñaareelu victoire bi nga xam ni Real Madrid mu ngi amal ci kile compétition di Supercoupe d'Espagne. jërëjëf Cheikh Tidiane. pour man RFM mooy rajo di gaaw ci xibaar yu wóor. tey jii ci biir chronique ñuy génn réewum Sénégal dem ba ca Cameroun rawatina ci dëkk bi di bafu bafu sam nag buñ ko tuddee xel yépp dem ci football waaye waxuñu football aada ak cosaan la ñuy wax ngir xamle leen ak royaume bu Baleng mu di ab waaso woo xam ni nii dañu fonk lool seen aada ak cosaan ca bopp ba ab buur moom moomu di buur ba daal dinay dalal suñuy ndaw ñu teewlu reportage Youssouf Bodian foofa ca Bafoussam soo jógee Bafoussam def lu jege fukki kilomètre ak ci palais yi Balangi. Thiola Ngwen. Euh, en fait le groupe Kwakwa. groupe Kwakwa danse patrimoniale lay def fecc bi nag mbégte lay wone. ak déggoo bi am diggante ñi fi dëkk mañee tamit pour ñun dalay lan jàmm fii ci Baleng ñu nag fépp fu ñu chef maanaam sa majesté Folongu 2 fu ñu soxla rek fa la ñuy dem def prestation. sa majesté Folongu 2 nous envoie. laata ñuy dugg ci kër buur bi ñu wax ñu ban taxawaay la war a am. ci kanamu buur bi doo sol mbaxane laata ngay wax ak buur bi da ngay sukk daal di tàcc. locale. Salut La chefferie Balin, notre royaume date du 14 siècle. chefferie Balin bi sunu royaume bi 14 siècle lañ ko créé. ñu ngi jógee fi ñu naan plaine Tika ñu traversé fleuve Noun sorewul trop ak sab bi dex boobule la ñu jéggi ngeen ñu ñëw fii waaye ci quatorzième siècle am na roi bu njëkk ku tuddoon Fundo moo créé woon chefferie euh, bu njëkk bi nekkuloon fii nag feneen la nekkoon côté dix-septième siècle am beneen buur bu ñëw changé site bi sànc ko fii mooy site bi ñu nekk tey man maay ñaareel fukkeelu roi ak benn bu dina si foo daal di am alal euh, ci anam yu lewul Mahmoud Saleh mu ne dafa laxasu ci mbir yi suuf Podor Abdoulaye Daouda Diallo la mu bëgg moom ci waa APR mooy ñenn ci ñoom daal di euh, xàll seen yoonu bopp di borom liste parallèle li ñu tegaat lépp ci suuf lépp ngir mu ne ndamal Benno Bokk Yaakaar xiifal bu ñu dugg dem ak léegi étudiant yu ndar UGB la ñu ñu ne mooy laaj Moustapha ci tolluwaay gu ca Mali moom président bu assemblée nationale yéeneem yëpp mu ne mooy euh, ñu daal di fexe ba réew ma lépp tegwaat euh, ci yoonu ko charte ba di kon ordre constitutionnel am na yaakaar mu ne waxtaan yi ngir kilifa ya fa di wàllu transition beeg waa CEDEAO am ak mucc ngir dal ci Mali ci technique bi Abdoulaye Diop. assemblée Ousmane Sonko euh, dal ci kaw responsable yi benn bokk yaakaar ci Mbour bokk na ci ay kàddoo moom njiital Pastef euh, lu jëm ci Issa Sall Cheikh Issa Sall mu ne alalam ci lu lewul la Mahmoud Saleh mu laxasu ci wàllu mbiri euh, foncière di suuf téeméer ak juróom fukki hectare ci département ba fa leeral yi Abdourahmane Diallo Ousmane Sonko dal di dal ci promotionnaire bi di Cheikh Issa Sall nekk candidat coalition Benno Bokk Yaakaar commune bu Mbour kii di compétir ci mairie bi maag moom ba ñuy dugg maa nekkoon major xam ngeen ENAM nu mu doxee ñi jiitu ñooy na fi gën a baax muy impôt domaine douane trésor ñoo gën a baax payor moom bokkuloon ci ñooña tey fonctionnaire kese la fonctionnaire bu andi ay millions wala ay milliards di ko joxe bu leen posé wu cent mille questions dafa tekk xaalisu réew mi waaye moomu ko. njiitu Pastef attaqué waat directeur u cabinet njiitu réew mi Macky Sall Mahmoud Saleh moom it nekk responsable politique ci Mbour. nee naa leen fii ci yéen ñu ngi fay jaay cent cinquante hectares moom xaamaan. mooy dox mbir mi mooy jëli xaalis bi pour yóbbu ko ci Macky Sall. caravane Ousmane Sonko bi ak buur li ko fësal tamit mooy ñenn ñu jóge ci yenn parti jàppal tàng yeewi askan wi Cheikh Ndiaye mooy njiitu mouvement kaddu Mbour ak Pape Biram Ndiaye nekkoon fi vice président LDR Yeesal. gisatuma suma bopp ci parti bi ni muy doxee. ba le 8 décembre passé j'ai fait ma lettre de démission et naturellement suma point de chute par rapport aux arguments qui sont contenus dans cette lettre c'est l'opposition li nga xam ne dañ ko yàgg a combattre di ko yàgg a xeex depuis des années depuis quatre-vingt-douze ba léegi ñu ngi ci terrain di xeex. muy Maître Tall mu nekk un jeune comme ñun. ci fàttali maître ab jiite liste communal bu yeewi askan wi list départementale bi kii di Cheikh Tidiane Youm bu PUR moo ci ne RFM Mbour. Abdourahmane Diallo. jërëjëf Adal ci bu kar mi lu ñeel wàlluy député bu fekk dugmal di wàllu boobaa ci ay kàddu député yi rek ñuy am sañ-sañu pare mooy daal di dugali frot ci ci wote moom Macky Sall fa mu fekk baax ca Fatick Ousmane Sonko jaar na fa mbooloo teeru ko lu mu defal di gis Abdou Diallo moom ma nga woon ci bët ganaar bu Sénégal ca Podor ci kaw campagne bi ngir gox-goxaan yi am 23 janvier 2022 sàkku na ci responsable yi APR ñu daal di tegaat ci suuf ña ci tànn seen yoonu bopp maanaam ay liste parallèle ñu teg lépp Euh, ngir ànd man ko doon benn ngir ndamal benn bokk yaakaar dimanche ji Ndeye Mati Abdoulaye Daouda Diallo ci commune bu Podor mu ne ngir saafonte ak ñi fi njiitu réew mi tabb bu ñu sukkandikoo ci coordonnateur départemental bu Benno Bokk Yaakaar bi le Mamadou Racine Sy bokk na ci tànneef yi gën. président tànn ko def ko tëdd li suñu parti d' accord si pour dem si kontaan. parti famille maître Bokk Yaakaar de façon générale loolu nag su ma ko fekkee si Podor day dal suma xel dem mais si damay féliciter quand tëdd liste bi parce que yëf yi yëmbul wax si investiture yi xam naa ne lu ñu si daj na xam naa ne liggéey ay gumus bi élection a xalaat ne war na mun mu woone boppam mais li si gën a am solo mooy ñi nga xam ne président moo leen tax ñun responsable politique yi amuñu benn choix bu dul jàppale leen. ministre des finances et du budget bile ne bu dee lu jëm ci wàllu mer ngemb yi nga xamante ne ay apériste lañu àndu benn yoon. waxoon nga léegi si tubaab ndax assister si éclatement APR benn bokk yaakaar loolu du am nangu na ñoom lu ñu def du doon lu gën waaye politiquement mun nañu ko comprendre war nañu ko mun nangu après 23 janvier nag toogaat waxtaanaat rek parti bi ak coalition bi continuer nu mu demee woon mais ñu président tànn ñun ñoom bu Benno Bokk Yaakaar bi lee sax di woo naataangoom yi mu bokkal bi lee coalition ngir ñu daal di maytu lépp lu xeetoog fitna dans tous les cas la violence elle ne peut pas donner de résultat dans l'arène politique Abdoulaye Daouda Diallo la mu mujjee xamle moo di ku gis situation